الباغي من الأمراض وكب من أنكر باهتراد برأني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باهتراد له سكوري على حياتي حبدا قديما فاز بالآيات أشكر شكر الذين سربوا min hasbi walil jinaani qurribo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi su ngeen déggee kàddu yu tedd yooyu muy xasaayit yu rëy yooyu nga xam ne sëñ Ahmadou jàng na ko fi léegi ngeen xam ne ndigal jóge na fa mu daan jógee jëmaat fa mu daan jëm te mooy jóge ci Serigne Sidil Mokhtar xalif général de Mouride yal na ko fi yàlla yàggal lool te mu wér jaar ci xalif sérénal euh, Serigne Modou Serigne Moustapha Massamba Mbacké Eh, jaar ci xalif eh, général bu Serigne Modou Faty Khary Mbacké muy Serigne Cheikh yal na yàlla yokk ko wér si tamit ci rakkam ji nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu Serigne Modou ngir lan waajal bis bu rëy bis boo xam ne nii saa bu nege ni jotee da ngeen dégg suñuy kaddu ñuy woote jëme ci bis boobu ba tax na Cheikh Abdoul Ahad mi woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ci bis boobu nga xam ne da koy jagleel way juram wa muy Serigne Modou Faty Khary te màggal gi ñu ngi koy defee fa ci daarul mooyin ñu ngi woo ñëpp fu ñu mën di nekk di woo Sénégal di woo bitim réew di woo jullit ñi ñëpp ñu ñëw bokk ak ñoom yiw yi nga xam ne moom lañ fas yéenee taataan foo fii ca bis ba te màggal gi doon màggal goo xam ne gu ñu ñor la gu ñu yitteel la kon ñoo ngi ko woo képp koo xam ne ab taalibi la képp kuy jullit mu ànd ak ñun bis boobu jàpp ko ngir fàttaliku wayjur wu tedd woowu nga xam ne mooy docteurul lislam ba Serigne Modou Faty Khary mi nga xam ne nii la mbokk ma waxoon ca way wa kum jëriñool jëriñ na la soo ko xamee soo ko yëgul defal na la kon kooku la ñuy fàttaliku wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xanaa ma jox kàddu ma sàmba Diop mi moom tamit mu wax ci programme mu bis ba. programme mu bis bu comme ni ko ab Abdou waxee nii la tëddee bu nu xëyee dinañ jàng alxuraan jàng xasida lim bu bari jàng tam xasida gi ñuy wax wasenaal insaan bi waaliday husnan buñ demee ba nga xamante ni 10 heures weesu na dinañ tàmbali recevoir gan ñi. bu 14h jotee ñu def bernde yi sëñ bi nee na cérémonie officielle bi tey ñu ngi koy tàmbalee à partir de 16h30 sëñ bi nee na mi ngi woo mboolem bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu di woo ñi mu bokkal turux yëpp di woo ñi mu bokkal kër sëñ Touba yëpp di woo ñi mu bokkal kër sëñ Massamba rawatina ñi mu bokkal kër sëñ Modou Fati Xari sëñ bi nee tamit mi ngi woo ñi nga xamante ni mooy bokki transporteurs yi yi nga xamante nii moom lañu bokkal réew mi ak raison bi ak biir Touba ñu ngi cey jiital ki nga xamante nii mooy Baye Mass Diop yàlla na ko yàlla yërëm ci barkeb Seydina Mohamed barkeb Serigne Touba di ci woo ak njabootam ndax së nee na ko lëreem la woon woo xamante ni daana ko jàppale ci bis bi kon nag bu bis bi ñëwee dana ko fàttali ñaanal ko di woo mbokki transporteur yi nga xamante nii ñoom la wólëree ca bokk dëkk ak ñoom di ko tàmbalee ci alaaji Màkka Diop Thiès Papa job css S css di wo tamit di wo tamit Moustapha Moustapha gay transporteur Touba Tali bu bees di wo Cheikh mbake Lo Touba keur Ñang di wo ngagn job transporteur di wo Baye Mass jeng Baye Massamba jeng Touba di wo yubre Sey garas dar Moti ak Cheikh falnal gar bu ndaw gar bu mak di wo seigne tala Lo transporteur mom tamit di talibé ci keur gi di wo tam seigne Mbaye sar Dakar Sénégal Tour nee na sëñ bi nee mi ngi koy woo ci bis bi bëgg na tamit mu ñëw jàppale ko ci loo xamante ni mooy yóbbu nit ñi fii nga xam ne mooy Darou Mouhine Darou Mouhine nag diggam ak Touba fanweeri kilomètre juróom la sëñ bi nee na mi ngi wootam ñi nga xamante ni ñoom la dëkkal foofee ci Darou Mouhine muy dëkk muy dëkk yi nga xamante ni ñoo wër Darou Mouhine daara ja muy muy muy mu di ko tàmbalee ci Colobane Ngurey Mure Jaabel ak Kontéyeen Euh, ñoo ngi woo tamit mbooleem da dawaayir yi nga xamante ni ñoo bokk ci isdiyaadul minati muy muy daayirab Dakar di ko tàmbalee ci daayirab dakaar Mbuur ak Louga ak euh, kon daayirab euh, Ngaay Ngaay sëñ bi nee mi ngi woo mbooleem daayira yooyu yëpp di woo ñi nga xamante ni nii mooy ay autorités yi nga xamante ni comme ni ko sëñ Modou wax bu sa jëng waxee sëñ bi nee mi ngi leen di doole fàttali bis bi di leen di leen sant bu baax maa ngi jàllale kàddu gi ci sëriñ Ahmadou Ly mu woo ñi nga xamante ni mooy bokk yi nga daayira yi nga xamante ni mooy daara alxuraan yi waaw sëñ Ahmadou li Cheikh moo leen di fàttali loo xam ne bis la boo xam ne kenn fàttaliwu fàttiwu ko muy mag màggalug daaru muhin gi ma ciy fàttali sama mbokki sëriñ daar yi yëpp boxuma kenn ak sama mbokki kuréeli di yi yëpp maa ngi woo waa rabitul madaarisil quraaniya ci sëriñ ci njiital sëriñ Moustapha Diop Ndar ak sëriñ Xaari Jaxate ak sëriñ Yahya Bousso ak sëriñ Amdi Diop maa Serigne Yahya buso Bustanul Arifin di woo Serigne chef du village kër ca darumanan manan wa ko daru manan kër Serigne Mudu Mbakke ibrahim Mbaye Serigne Daara maa wo Serigne Mara ndjay Serigne Abdou Karim ndjay Serigne Ibrahim gey Guyi Sew Serigne Omar Kan ak Serigne Mor Kan Jakar gam Kan Serigne dar ak Serigne Tall Alasar ak mbollem daray Kamil yep maa ngi leen di woo baxuma xam man nga ko ci ak foo mën a nekk ak foo ko mën a yore ak fu fépp foo xam ne fi maam daara kaamil la nga fa rek maa ngi leen di woo leen xamal ne bis bi mooy sama bi nga xam ne képp koo xam ne kii fam nga sa tànk de nga teg ko ci foofee ca Daarul Muhin foofu mooy sa fajog aajo kon maa ngi ci woo ñëpp maa ngi ci ma ma maa ngi woo sama mbokki sëriñ daara yëpp boxuma kenn boxuma ñenn maa ngi jox soxna Kine Diop samay wax mooy damay woo njabootug Seex Masamba Mbakke gépp di woo njabootug Seex Modou Fati Xari gépp di woo njabootug Sëriñ Tuubaa di wo soxna Khady diwasak di wo soxna mbien Lay di wo soxna Mati Diop di wo kep ko xamne no bok cheikh ma samba rek ñoo ngi lay wo ci bis bi ta xamne bis bi nga japp ne sa bisa ba loola jalle may wo wa daayira bi sama yi jigen yi nga xamne ño wara saytu magal gi nañ ci def seen fulle te kenn ku nek nak fa nga yemoon xam nga ko ñi ngi lay wo nga ñew teew ci réunion bi parce que daayira mom baxna lool waaye dangaa war teew tay réunion tay tek sama mbokk jigen yi ma ngi len di wo ci daayira bi dañ ñew ñu saytu bi ñu xamne am nañ parce que nit bu amé bisam du ko sàggane sàggane wuñ ko sax jot gee bërit way nak na ñew teew si ba loola tegee may wo wa gar bu mag samay dekkando ndax nit amul lu may ay dëkkam yéen waa gaar bi yëpp tàllal naa leen loxo na ngeen japp ni 3 février yeen ko mom wa daru min na ngeen xamni yeen mom 3 février kon bis ba ngok ndigalal Cheikh Abdou ngok kun bokal seigne Touba kun bokal Cheikh Massamba kun bokal Cheikh Modou fatih Xari kun bokal Cheikh Abdou Lahat la loxo wa salam kon may jox soxna Kine Diop moñ mu eggale ay cadeau ñun daal ñoo ngi woo suñu mbokk jigéen yi waa waa gaar bi ñu ngi leen di woo di woo waa xayra képp koo xam ne sëñ Abdou Lahad Mbacké mooy sa wasila mooy sa yaakaar na nga takkaayoo woon na nga takkaayoo nu mel noonu nekk ca waañ wa fas yéenee dalal gan ñi fas leen yéenee teral ndax amuñu dul bés bi kenn ku nekk sa sëriñ mooy sa mooy sa mooy bésam mooy sa bés te nun sunu sëriñ bi sonaluñu ci dara Cheikh Abdou Lahad képp kuy muy sa sëriñ sa xel wal naa dal ci wet gu ne kon noo ngi woo mboolem sunu mbokki taalibe yi ak ñu nu bokkal Seex Masamba ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew mi ñëpp ñoo ngi leen di woo ci suñu bés bi Daaru Moyen le 3 février yàlla nañ ca yegg ci jàmm salaam te lépp lu fa def yàlla na ko suñu borom yàlla ful te dong ci barkeb Seex Masamba sëriñ bi dafa wax ne rek ñu fàttalil ko bisu waajuram bii mu ko sàkkoon ci moom mu koy defal ginnaaw bu noppee nekk muy 3 février mu koy def ci dëkkam bi ci Daaru Moyen ci fii ci wetu Touba serigne bi nak euh, digone ko ci faju aajo ci mom ak képp ko jàppale serigne bi nak diko jotali bi yoon ci kilifa yu àdduna yi nga xamné si mom la bokal jamono diko ko commencé ci njiitu réew fi nek muy président Macky Sall ak gouvernement yépp ak institution yépp ak autorité classe politique bi yépp bayiwul kenn tiré wat attention autorité yi aussi ci dëkk bi mu koy défé moy Darul Mouhine muy dëkk bo xamné dëkk bu nek ci extension Touba la. boo xam ne si li Serigne Touba bëgg Touba te di ko fi def lu moom lañ fay def muy matlaban li taatir rahim ak mahraban min taatir min taatir rajim dëkk bay nekk dëkk boo xam ne ëpp na ñaari junniy buntu kër kon démographiquement c'est important kon bépp autorité bu nekk Sénégal war naa xam ne Daaru Muxti am na war naa xam ne Sëñ Laat Mbàkke ma nga fa kon su fekkee ne nag bisu bàyyam bii nga xam ne si barkeelu la ci képp ku ci bokk woo na la ci religieusement c'est important mais aussi politiquement c'est important qu'on vraiment man Modou Bousso man en tant que talibé ci kër gi mais aussi en tant que collaborateur euh, président de la République euh, sur le plan politique maa ngi koy sommer pour que nous répondre favorablement à l'appel au Seigneur. Abdoulat Mbacké parce que képp kuy wutu nit doo bàyyi ay nit te kuy wut ay nit aussi doo bàyyi ñaari junniy kër ko des gens qui demit bëggoo ay nit donc avec l'ensemble de nos amis de tous les bords hein, que ce soit du, euh, disons de l'État, que ce soit aussi de l'opposition, ak que ce soit des personnalités tout court hein, ñëpp sëriñ bi bayiwul kenn kenn ku ci nek mo lay tudd te di la fatali bëssëm bi nga xamné ñor na trop ndax sëriñam ba wajuram ba moko ko digël ndigal te am lu mu ko ci digëlon te loolu mu fas yéene ko bokk Sénégal gépp waaxiru Dawa na rabbil alamin